avons déposé un préavis de grève le 13 novembre 2018 Nous déposer déposé une grève le 15 novembre 2018 L'autorité est directeur du directeur du transport euh, direction AFTU ak direction CAPTRANS Nous sommes d'accord pour lever ce mot d'ordre de grève le le 17 février 2019 Nous avons signé un protocole d'accord pour que nous contractualiser travailleurs AFTU mais ñu xool ne boobu ak léegi fukki weer ak ñeent jàll na at ñaari weer ñett transporteur ñoom ñoo si signé ñoo respecté contrat boobu ñu signé protocole boobu ñu signé woon te ku nekk xam na ne protocole boobu saafee fait fii d'un jugement ñu xool direction AFTU ki ko jiite muy président bi si boppam sax moom mi nga xam ne moo signé woon moo parafe woon na protocole boobu amul benn liggéeykatam du chauffeur am wala receveur boo xam ne signé nañ la contrat kon ñu xam ne ñii lañ doon wax gëmuñu ko ñu gis ne itam lii nga xam ne mooy mbas mi fi am ñu naan coronavirus bi mu amee ak léegi travailleurs yi mars ba léegi liggéeykatu af li li ëpp fay kenn fayu leen salaire ñi ngi toog ci seen i kër ñii ngi liggéey ñu naan leen sax journée lañ leen di fay di ko dagg mais ñu seetlu ne am na si ñoo xam ne sax dañu gaare seen oto dàq seen i liggéeykat ne leen dem leen ngeen toog parce mënatuma am lu ma leen di fayee léegi nag ñuy attirer attention autorités yi plus particulièrement le président de la république parce que ministre du transport moom defe naa ne affaire bi daf ko ëpp président la ñuy interpeller le président Macky Sall que ne lii xew aftu mënatuñ ko seetaan parce que dégg nañu ministre du travail waxoon na fii que ne si pandémie bi kenn waru fi dàq nit lu dul faute lourde kenn waru fi yóbbu nit licencié ko wala bu le chômage technique ne ñu fay la C'est dix sa salaire mais loolu yëpp amul donc. ñu gis ne état bi génne na benn fond de résilience pour wax ne daf koy dimbalee ñi ñu impacté tey bi mu amee ñu gis ay liggéey ay transporteurs yoo xam ne commencé waat nañu dawal seen oto te dañ ko gaaroon boobu ba léegi ñu wax ne ñun loolu dañ ko dul seetaan ñun syndicat parce que li tax duñ ko seetaan ki nga xam ne liggéeyloowul ay nit gaare otoom impacté travailleurs yooyu bu ñu buggee ñu séddale xaalis bi ñoo ñu jël kër te daat si te fay ñu salaire liggéeykat yooyu parce que ñooñu tra employeur bi moo leen toogloo daf leen war a fay beneen bi mu am protocole bi ma waxoon ñu ne dañuy contractualiser ki contractualiser day fay IPRES cotiser le travailleur bi caisse de sécurité sociale ak charge par rapport ak euh, seen euh, charge médicale ñooñu ñu bugg ko yemaleeg transporteur bi nga xam ne respecté wul protocole boobu kon ñun loolu mënuñu si ànd itam. yooyu nag biñ ko dajalee ñu gis ne dàq nañu presque genn wàllu liggéeykatu aftu yëpp ñii ñetti weer ñi ngi toog di muñ amuñu salaire. ñun dañuy exiger ñu fay travailleur afti yëpp seen salaire ñetti weer yi ñu leen yoreel si xaalis boobu ñuy joxe beneen bi képp koo xam ne dañ la toog la woon ñu delloo la sa place liggéey beneen bi si topp mooy contractualisation boobu dañ koy continuer li tax ma ne dañ koy continuer am na si même si ñii nga xam ne dañu signé woon wax ne respecté wuñu woon euh, yeneen transporteurs yi suivre ñu leen woon si euh, contractualisation bi ñom dañuy dellu système bañu ñu moy mooy système bo xamné da ngay xey 4 jours noppaliku 3 jours ñu nekk dans un pays de droit comme nous ñun li ñu dese mooy yégal autorités yi déposer préavis de grève dès demain inshallah rabbi préavis bi bu maté un mois suñ ko déposer suba au plus tard le 20 du mois prochain inshallah allah dinañu gaare aftu té buñu garé aftu Dakar ñu tok 48 heures yëngatuñu dinañu nationaliser euh, grève bi ba fépp fu aftu nekk Sénégal dootu fa daw.